salaamaaleykum salaamaaleykum suñu mbokk internet Dakar Midi nuyu nañ leen di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay euh, ñàkk ñu seetaan nag erreur gënu ko rëy ku bëgg lu leer ñun ngay topp. li bu ñoo koy feeñal li leerul ñoo koy leeral rawatina suñu wàllu aar bi suñu wàllu musique bi ñu nekk tey nag yàlla daa dogal seen émission tribunalu aar bi dafa doxantu seet si benn gaa grand maestro ñu koy wax Xaadim mbaay Peek Mees Mees Peek muy doomu Pikine nag di ndaanaan boo xamante ne nii kenn dootu ko présenté ci mim réew parce que bu fekkee ne waar rek la bay na waaram ci wàllu wàllu bi mu féetee muy wàllu musique Sénégal di wàllu aar bi ñu ne muy percussionniste bu mag nekk tambar mosoor bu mag tamit ànd ak ndaanaan bu ne tëggal ndaanaan bu ne jaxasoo ak ndaanaan bu ne dem na fu ne ci àdduna mu nekk nag nit ki nga xamante ne nii nag royuwaay la référence la man imaam laa ko tuddee waaw imaam laa ko tuddee li tax ne imaam laa ko tuddee euh, bu sappe bi taxawe imaam bu ñëwul kenn du julli kon imaam baa ngi nii toog ku bëgg a dégg dëgg pire waa déglool waaje yi déglool Baay Faal bi Xadim Mbaay mees peeg peeg mees nuyu nañ la eh, maa ngi ziar sama waaj di ziar Sénégal mhm. di ziar le monde di ziar maanaam euh, kilifa diine yi kilifa aada yi di ziar ñëpp ah, képp kuy julli rek ak képp kuy doomu a ñu lay ziar di ziar euh, sama ñëpp daal waaw di ziar ñëpp. <laughs> c'est vrai moo tudd tribunalu ah, mais loolu mooy yoon eh. mais lépp dafa war a leer parce que aar bi daa war a am police. ak mm-hmm. tribunal ak ay ñi ñuy jàppee. parce que fi mu ne nii yàqu waaw dafa yàqu de yàqu moom. mais depuis depuis quand yaa ngi ci aar bi. waaw man de def presque depuis quatre vingt neuf ba léegi maa ngi ci aar bi ah ba léegi maa ngi musique ma bàyyi dama bàyyi école rek commencé musique quoi vraiment mm-hmm. euh, doon paa bi ci tëgg bi de côté sabar yi dama ci doon paa bi mm-hmm. xam nga ba pare jàng ko ba pare jàng musique waaw ah, Ndongo Diop ak Alla Mbaye vraiment ñoo ma jàngal sabar. ak Alla Mbaye ñoo bi ma bi ma yàlla dimbalee ma donn ko ci sama papa. sabar yi damaa dem jàngi ko ànd ak samay nijaay muy Ndongo ak Alla. ndongo moom yàlla def na wàññeeku na yàlla ko yàlla yërëm mais àlla mbaay moom mi ngi fi. Mhm. waaw waaw bi ma doonee affaire ba noppi dama ko ñooñu ma ko jàngal waaw. maanaam da nga ko pare dem jàngi ko. waaw dama ko doon sabar yi dama ko dond dem jàngi ko. kon loolu olof naan loo nekkul taalibeem doo doon sëriñam. waaw loolu loo nekkul taalibeem doo doon sëriñam. maanaam dond rek wóorul. foo nga jàngi. dond kese doyul. foo nga jàng jàng jàng rek. jàng mooy tax te ni ma jàngee sabar noonu la dem jàngee musique solfège ba pare do ré mi fa sol la si am ah, musique bi jàng ko. waaw ah, waaw jàng nañ ko parce que musique moom il faut nga jàng ko déglu ko am nopp di déglu di consommer comme ni ngay consommer sabar yi nga dem jàng rek xam nga tëgg sabar ak tëgg musique bokkul. waaw dafa gars yi bari ñu ngi ci musique bi ñu leen wooye ay percussionniste dañuy ambiance rek mais musique dëgg-dëgg percussionniste il faut nga liggéey ko il faut nga am benn xam nga. benn vision bu nekk ci yow quoi. waaw mais dañoo gis tamit ne orchestre Sénégal yi musique Sénégal bi jamono biñ toll nii ni muy doxee euh, boo amee seetlu tuuti tëgg tëggkatu sabar yi ñiy tëgg tànn beer yi tuur yi xew yi ñoom kese ñoo fees dell ci orchestre yi te euh, li ma ci jaaxal. jàng musique boobu ngay wax ñoom dañ ko jàngul dañoo jékki saay rek dugg ci musique bi di tëgg est-ce du ñoom ñoom ñoom kon faute bi ci ñoom la bàyyi ko musique bi ñuy wax naa dafa yàqu waaye xam nga gis nga li nga wax rek euh, musique bi aada daa war am police. ak tribunal ak ñiy jàppee. tribunal baa ngi nii. parce que li bu demee bu musique tey ji bu demee ba nga koy ba nga ba boo ko dégloo fecc. dégloo too tem mhm. dégloo too dara dul mumbaay mi rek ak ambiance bi ak sinap musique ba yàqu na léegi musique Sénégal loolu la quoi am ambiance sinap mais amul tem amul amul amul amul amul amul harmonie. dañ topp rythme bi ba fàtte harmonie bu dee côté musique bi la gars yi dañ topp ambiance di trop quoi sa mbokk tëggat sabar nag maa ngi jégalu yu ci bari ñoo ko yàq parce que intro bàkk ah waykat bu paree nga def bàkk bàkk yi c'est trop bàkk bàkk yi benn morceau gars yi dañ ciy def ay 53 bàkk te bu njëkk à l'époque boo déglu morceau yu sunduur njëkk wala super jamono benn bàkk rek lañuy def après kii mais loolu wax na ngi ni jamono changé jamono changé wul parce que naaj waa ngi naaj weer yu weer ba léegi weer wi weeru dem ba léegi mooy weeru weer wi nekk tey mooy mooy nekk suba bi <laughs> te te naaj wi ne ba léegi mi ngi naaj ker gaa ngi ker ba léegi kan dara changé wul jikko yi ñoo changé ak idée yi te bu neexee ñu ni jamono changé jamono changé wul jamono changé ngelaw laa ngi ngelaw ba léegi xam nga bu sedd bi ñëwee tàngoor bi ñëw kon jamono changé wul nga gars yi ñoo changé seeni i idée même sabar yaa ngi gis ñu koy for ay ay foru jëmbe ñu ku nekk sa génération xam nga peeg dem jëndi der. foofu foofu bëggoon naa fa ñëw sax yàlla bu ma la dog hmm? ma ne ko foofu bëggoon naa fa egsi sax ci fooru jëmbe bi hmm? mais avant loolu. musique bi waaw non avant avant bi sax attends avant musique bi euh, dañoo seetlu ndax yow jaan nga ci tëgg tànn beer comme comme comme comme ni ko xale yi de defee tëgg sabari quoi. non jaar naa ci tànn beer man tànn loolu mooy loolu mooy moom mooy la mbapat. mbapat nga ci mooy mbapat bi boo demee tëgg xew ba pare nga dem jàngi musique. xam nga tëggi xew boo ko def tëgg yëpp dañ tëggi xew ci ren jaar ñu ñëpp ba léegi damay tëggi xew waaw fay ma tëggal la ah bon ba léegi ah, ba léegi xew parce que xew bi moom mënuñu ko bañ parce que doomu géwél lan ku nu fay xew ñu tëggal la tëgg mu neex mais suñu tëgg bokk tëgg yi booy di tëgg nii waaw kañ foofu nag laa bëggoon waxtaan ak yow parce que ambiance yi def gars yi ñun ambiance de dañuy tëgg yoon ah, ku bëgg ambiance nag nga dem ci booy ñu la waaye ñun ambiance suñu dañuy tëgg lii tëgg yoon laaj ñu tëggal la xam nga tëgg logique quoi Baara Mbay yoon Farou Jar yoon Ardine yoon te booy sax xamuñu Baara Mbay xamuñu Ardine mënuñu ko tëgg sax foofu. mais mais mais mais avant avant Baara Mbay ak yooyu ngay wax tàggu mbaar man dama gëj a dégg tàggu mbaar ci tëgg xale yi tey. du tàggu mbaar parce que tàggu mbaar yoon parce que tàggu mbaar loo xam ne da nga ciy boole xul wala axat allah somat lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahu kufuwan nga ah, ah parce que da nga ciy togg da nga ciy tari. Ah, loolu léemu la quoi léemu la. parce que booy xamuñu ko xamuñu yooyu comme li ma la wax rek même li musique bi yàqoo noonu la sabar yi yàqoo comme li ma la wax sama mbokk géwél yi ambiance bi dañ ko topp de trop wax dëgg yàlla ku ne yaa ngi xasuma kenn nag quoi waaye ci côté côté musique bi laay wax quoi. Mhm. gars yi war nañ delluwaat seen xel te wàññi ambiance bi ci musique bi quoi te jéem a def musique musique musique mbalax bi dafa set wicc mbalax bi gars yi bàyyi ko la Youssou Ndour booy déglu mbalaxam bu njëkk booy déglu morceau Youssou nduur yi ak ay quatre vingt dix sept wala quatre vingt seize mhm. day mel ni tey la. mooy déglu super jamono day mel ni tey la léegi lañ ko togg xam nga il faut ñuy xool. mais Youssou Ndour tamit est ce que ñëwul ci jamono parce que tamit musique am yu mujjeem yi nii boo ko dégloo parce que moom xaw na xaw na nuroo ak ak li xale yi di musique ah. mais bokkul ba léegi parce que loolu xam nga lu am ay tànk. loolu ba léegi moom di voilà Youssou ba léegi bokkul ba demee soirée Youssou Ndour ba léegi li muy li muy teg day wuteeg li gars yi di teg bokkul grand bi xam nga foofu dafa am logique quoi ba pare musique baa yaru quoi. bu Youssou ah, dafa yaru musique bi moo yaru waxtaan <laughs> musique booy yi tamit musique bu mag la <laughs> loolu mooy problème bokkul sax ay musique grand yi ak booy yi bokkul ni ñuy musique bokkul sax loolu mooy problème bi. mais kon daal booy yi daal su ma la déggee mooy que ni. dañuy ambiance booy yi booy yi ambiance mais musikuñu. musikuñu dañuy ambiance bu dëgg neexee. mais kon ni léegi yàq nañ aar bi. ah mais ambiance bi ñu ciy dawal seen i oto yor seen i kii loo ci mën loo ci mën loolu neexul neexul leen ko parce que mais ma yëgal leen ambiance bi du génnul Sénégal Sénégal la yem de. tey ah ji ah ñoom ambiance yi festival ambiance foo ko gis. ah man ah, booy da ngay def musique yoon mais ambiance yi boo ko toppee Sénégal rek lay yemale ak batterie yi la ñu ciy am yooyu nga ci am rek mais bu fekkee da am vision ngay ngay way waykat da ngay fexee dem nga jouer musique international bi nga xam ni da nga mën a am ci festival yi loolu mooy yoon ko oh, voilà loolu mooy yoon. loolu mooy yoon waaye ambiance moom mën na yem Dakar quoi. xale yi jigéen ñi si rap d' accord mais bu fekkee da nga bëgg a lekk ci musique bi dëgg dëgg dëgg dëgg non il faut nga def leneen quoi. ok soo bëggee lekk ci musique bi faw nga jàng musique bi soo bëggee lekk ci musique bi faw nga gëstu. parce que harmonie amatul yow gis nga yow nay musique léegi guitare jig mi sax dootoo ko dégg bu njëkk danga nga gis waykat nga def atelier ak moom bu njëkk waykat da nga def atelier nga dem atelier ak guitariste ngeen répété un mois après ngeen dugg studio mais léegi loolu amatul waaw mais tamit daal déggatoo jigmik mm-hmm. marimba rek nga dégg diggante ne ak ak perki rek léegi léegi musique perki la ak marimba léegi musique léegi perki la marimba. mais nag mais nag doguma la de mais suñu waxtaanee tamit mm-hmm. grand mm-hmm. xam nga li ñu war a waxtaanee ci musique bi dafa yaatu parce que gis nga ba ci musiciens yooyu ngay wax bokk nañ ci tamit ñi yàq aar bi laaj ma lu sax parce que yow su fekkee ne da nga yor instrument yow nga jàng musique kee jógee ko fee ñëw di way te mënul wéy ci accord mënul wéy ci temps te yow doo ko wax dëgg doo ko corriger yow doo ko wax lenn parce que lan parce que yow da ngay lijjante xaalis bi mu lay jox yow bokk nga ci ñi yàq musique bi borom studio bi tamit bokku na ci ñi yàq musique bi. Ah, parce que ñoom ñoom xam nga ñoom seen affaire mooy xam nga tubaab tey jii day def lu leer tubaab mix rek da ngay enregistré nga pare sax mu effacé ko dem enregistré waat ko bu njëkk da nga daan musique comme li ma la benn studio moo fi nekkoon studio Wings studio 2000 moo fi nekkoon. Mm-hmm. da ngay waaw waaw ngi si moo nekkoon Robert Lawood mm-hmm. yooyu fi nekkoon nekk ci studio mais léegi studio yi dafa bari ku dugg seen nag génne benn affaire musique programme te li ma gën a métti nag mooy musique programme bi gars yi di def <laughs> musique machine bi gars yi di def boobu moo gën a woowee sànq waykat yi parce que da ngay musique machine mu neex gars yi bës ko mu nga gagné si lu ne nag ci Sénégal après nga war am parce que booy fay musique machine yu bëri mënuñu live. waaw nan wax dëgg rek affaire yi il faut ñu xoolaat affaire yi quoi. il faut ñu affaire yi ñu lu bu ñu topp ambiance bi rek ak machine musique machine yi xam nga musique machine yi ñuy def ni day yàq waykat parce que boo tàmmee musique machine doo mën a way live. Mhm. mën a way live te live foog moo gën a ci ay festival. Mhm. mooy tax ngay dem ci festival yi. nan wax dëgg rek. Mhm. live mooy tax nga yegg ci festival yu mag yi euh, léegi nag grand. dama bëgg ñu ñëw ci wàllu suñu aada suñu cosaan mooy yow ñett yi nga yor nii benn bu ci nekk nan la tudd ak lan ak lan mooy rôlam ci musique parce que bii tunguni la bii momang bii cool comme tey da nga ko bëgg tëgg euh, ambiance comme li ngay wax nii ndax ndax ñett yi mën nañ ko tëgg. non mën nañ ko tëgg lii mooy ambiance. kooku galañ lañ koy tëggee quoi. ah, ah su dee ah. ambiance la da ngay galañ. waaw ah, da nga tëgg. da ngay galañ nga tëgg mais problème bi mooy euh, comme li ma wax rek. Euh, war nañ ma delloo si daal suñu xel. ñu delloo suñu xel ci musique bi fi mu ma fi grand yi bàyyi woon. ñu bañ a bañ a mujj pousse mu réer. waaw mm-hmm. sabar nag. sama mbokk géwél yi dañuy for sabar yi peeg mees. peeg mees peeg. pees peeg parce que ay sabar. Mhm. da koy foor peeg. waaye doo jël ay sabar ay perméable ay mbuus di ko foor foru jëmbe jëmbe ak yërëm sabar ak yërëm. ay bidon jëmbe ak yërëm sabar ak yërëm. te loolu rafetul quoi ñu dem ci hôpital yi di di di jël ay rajo yi di ko fore sabar yi loolu rafetul. Hmm. gars yi nañ bàyyi loolu loolu sabotage la quoi kaas naa ko ba sonn mais nag. Euh, mbokk géwél yi ku ba ci déglu war nga xam ni affaire bi moom boobul yàgg naa ko kaas nanu dimbali ngir yàlla bàyyi suñu sabar yi nii sabate di ko foor ay foor yu mbuus ay perméable ay ay ay foor di ko foor foor yu jëmbe jëmbe ak yéreem sabar ak yéreem waruñu jël yére jëmbe di ko solo sabar xam nga du yoon da ngay xool ni jëmbe mënatoo mën da ngay tukki doo mën a jaay sa sabar c'est daan gars yi danaan c'est petit jëmbe ah, mbuus la ah, maanaam kon yow su ma la déggee lii daal lii der la waaw lii cóol la fii deru bëy la ah deru bëy ah, bëy la maanaam bant bi dimb la mooy peg yi peg yi waaw peg yi niim la niim la niim la bant bi dimb bant bi dimb waaw lii xiir la peeg mees mees peeg mu ngi nii peeg mooy peeg mooy lii mooy peeg yi mees mooy lii mees mooy yii nii tere yu normalement peeg mees waaw mees xiir der la war a wax waaw peeg mees xiir der pees meeg xiir der. xiir der loolu la ñu war a wax. peeg mes xiir der xiir gee nekk nii. waaw der bee nekk nii. ok. ak ah, kii diwtiir lañ ciy tiir wala beurre. ci biir ci ah, nga cee kànje mën nga cee diwtiir boo paree kànje ci. waaw ah. tey lii nii tey benn bu ci nekk su manqué ci musique bi. ndax ndax du am faay. day am du ça dépend rek. parce que lii euh, amul gisuma sabar di sabar lii mooy àdduna sabar Sénégal lii mooy Sénégal sabar mooy Sénégal Sénégal mooy sabar xam nga tax ma loolu mhm. parce que tey jii sabar lan créé fii Sénégal benn instrument lan créé Sénégal muy Sénégal muy sabar xelal li ma la wax. sabar kese lañ créé Sénégal. Sénégal mooy lu moom lan moom de. mais tama. mais tama tama sax mën naa yi ñu ngi ñu tama. mais mais fu ñu lañ ko créé cosaanu Sénégal la. mais mais cosaanu Sénégal la Mali ko mais Kora kës moomuñu ko. Kora moomuñu ko. waaw ah, moomuñu Kora ko moom xalam tamit moomuñu xalam ñu ngi jën ko kii nii am na Mali am na kii mais Sabar laa la wax. Sabar moom cosaanu Sénégal. moom la moom laa mën a wax ni moom lañ créé senegal ni Sénégal moo ko moom ko Sabar. Sabar voilà. amul feneen fii rek nga koy gis Sénégal. ok ah amul feneen Sabar Sénégal rek la moo tax ma ne Sabar Sénégal mooy senegal da ngaa dégg temps yu njëkk émission buy ñëw euh, journal télévisé bi commencé li li ñuy dégg du jaaros ngay dégg. Mhm. taas gi kii taas gi kii taas wura caa kii gi kii caa caa gi kii caa caa gi kii caa kii taas xam nga. Mhm. bu nga njëkk loolu nga doon dégg mhm. sabar yi commencé ci journal télévisé. ay sabar la doon commencé bu njëkk. léegi dañ dañ jógee ko barki démb ci suñu papa Lama. Lama Lama Gueye bu xaar yàlla. Ah, Lama grand ah. euh, mu am. trois façons tegin yum ñu wan xam naa ne nag yow galañ bi manqué na la. wan voilà léegi. rumbax tëggin waroon na la bi nambax xam nga waroon na la waroon na bi bi ndambax sabida ndambax bi bi ndambax sabida bataas nga tàggu mbaar mu leer. loolu mooy tàggu mbaar bu leer. bu leer mais des na sax parce que dama ko dagg rek. mais tàggu mbaar dafa ñaari façon. wala benn façon la. non benn tàggu tàggu ku nekk géwél bu nekk ak sa façon bi ngay tàggu rek me na jaar yoon rek. mais l'essentiel daal parce que tàggu mbaar yëpp mënuñu nduroo quoi. parce que ku nekk que la ngay tàggu mbaaree bàkk mbaar mais na na doon géwél rek neex xam nga ku si nekk te géwél yi ñëpp mën a tàggu mbaar mais tàggu mbaar yi na na doon géwél te mage. démb. ah démb daal démb mooy affaire bi parce que démb jur tey. Mhm. mais bu nu fàtte démb. Mhm. Ah, démb tax ñu naan tey wala ma la dégg naan affaire yi affaire bi musique génération yi musique amul génération. musique amul génération. tëgg amul génération benn métier amul génération ndax lépp xam-xam la. ak ak xew. ak xew. ak xew mel ne xew moo. xew xew xew moo tax gars yi ne génération. Ah, parce que des fois tamit xam nga. xam nga xew day day boole xam-xam. Mhm. xew xam-xam. danoo war a ànd. Ah, nga xew ba pare am xam-xam. ak ay neex waaye Sénégal yi mu fi gis da ngay xew te amul xam-xam. mais mais mais mais ba pare tamit xam nga xam nga lan moo ma jaaxal ci mbir mi. maanaam xam nga sànq da nga wax lu am solo. maanaam booy defuñu ñu carrière ñoom bës la ñuy def. mooy moo xam nga bu njëkk da ngay gis aw après dem woy waaw xam nga da aw comme Youssou Ndour doon aw paay ay ndombo wan ay kii bu njëkk ay à l'époque ay quatre vingt ay quatre vingt soixante seize muy aw paay ay Miami waaye foog nga jaar si aw. mais salaamaaleykum rek ñu benn musique machine gars yi invité la ci yi et maa ngi jégalu ci animateurs yi ak yi ñoom ñoo gën a yàq musique bi ñu ci bëri waaw. Ah. animateurs yi ak animatrices yi ñu ci bëri maa ngi jégalu mais ñoo gën a yàq musique parce que. ci ban côté. ban côté bi parce que ñoom d' abord animateur da nga war a xam concept musique acoustique bi ngay teg. Mm-hmm. ba pare bu dee acoustique la nga xam concept acoustique mais damay gis animateur yi def benn benn concept acoustique musique acoustique. marimba bi di jàmm na ko neexee ñu ne acoustique. bokk nañ ci ñi ñi quoi. bokk nañ ci ñi yàq bi. waaw parce que ñoom ñoom ñoom ñoom ñi ci bari duñu mélomane. animateur parce que fii bu njëkk tey jii Michael Souma moo fi nekkoon ak Khalil Gueye. Mhm. ay boulevard grand musique ngay gis ñooñu ay animateurs yu xam musique lan mhm. mais léegi ngay gis ku xeesal bi wax tàll ñu teg la ci télé bi ngay def la neex. <laughs> te ku sa benn télé ñu teg la ngay def ngay invité ñu la saf foofu la musique bi yàqoo. parce que bu njëkk bala ñu bala ñu laa teg ngay animé da ngay xam musique. Mhm. da xam d'abord. waaw mais boo xamul musique li ngay teg doo ko xam. lu mel noonu barki démb dama ko doon kaas. ma ne kii nga xamante ne ni day animé tey suy invité ay bongo war na xam temps wu bongo kii invité ay tëgg ko du sabar war na xam temps wu temps wu temps wu sabar. yaa ngi dégg bi mais nag dafa am nag luy daw ci suuf. loo xam ne gars dañ ko ragal a wax te comme que fii mooy tribunalu aar bi fi la lépp war mm-hmm. dañ ko war a teg ci table bi animateurs yi nga xamante ne nii mais euh, artistes dañ leen di corrompe woy lu bon woy lu naqari woy loo xam ne amul thème woy loo xamante ni musique bi nii la def woykat bi jaar nii nga dem koromp animateur jox ko benn weccet heure bu xëyee rek mu fatt nit ak sa son. ah mais xam nga loolu tamit gars yi ko war a xool quoi parce que. animateur bu demee ba salaire am doy ko ah euh, di corrompre pour waykat bi jox ko mu ne pour mu yooyu pour man ñàkk personnalité la quoi. parce que parce que parce que waykat bu waykat bu dèjà yow yaa ngi yaa ngi yàq yaa ngi yàq affaire yu bari parce que moom mi ngi yàqal boppam di yàqal waa ji. parce que waykat bu fekkee ne waa ji da koy teg te amul xam-xam. Mm-hmm. xam nga moom xaalis bi nga ko jox bu jeexee mu mu bañ ko teg. parce que xaalis bi du jeex du ji day jeex xanaa bu jeexee mu teg ko wala da koy laagaat. <laughs> <laughs> non fii nga toj moo pare li ma gën a métti tamit mooy ñi nga xam ne dañoo ne ci plateau télé yi yooyu tamit day joué yow nga nekk plateau télé gis benn maa wala benn tëggkatu sabar wala benn wéykat mu jaar ci suuf jox la benn wéccet na la invité ma nga invité ko bàyyi borom xam-xam yi ci suuf bàyyi ndaanaan yi ci suuf bàyyi jàngalekat yi ci suuf di jël ñoo xam ne xam xamuñu dara ndax laan xam a li fi yàqu lépp tamit kenn mënu ko wax grand. man ci yëpp borom télé yi laa koy borom télé yi ñu jiite télé yi ñoo war a xool ni ñuy gérer seen télé yi. mooy patron de presse. ah patron de presse yi ñoom laa koy parce que ñoom ñoo parce que am na télé yoo xam ne mhm. a nga. parce que waroo gis ko ki ki tey jii RTS. Mhm. bara nga fay animé da ngay am diplôme. Mhm, da nga wax dëgg il faut nga am diplôme animateur. très privé yi xam nga. maa ngi jégalu mais ñoom da ngay mooy loolu daal da ngay dañuy invité ñu leen ay RTS du ko jug ñu invité la saf bala ngay invité nit pour mu def benn affaire da ngay xam kii concept bi muy def lan la. Mhm. nga xam kii invité fan la jaar. CVM mhm. fan la. Mhm. def. ak ñaata pays la def lan drapeau Sénégal ban ñaata dëkk la dem pour taxaw drapeau Sénégal ñaata ñoo fi dem taxaw drapeau Sénégal kenn invité wu leen ñu ngi fii. sama sarak man man man dem naa fu taxaw Sénégal dem naa Australie Japon ah dem naa fu wër naa pays bu ne trente euh, États-Unis wër nañ ko ak Cheikh Lo yow yow yow yow sa xam-xamu bopp wala wala euh, Cheikh Lo orchestre yi nga ànd Cheikh la àndal orchestre Cheikh Lo la àndal wër nañ monde bi Cheikh Lo ah, ak Cheikh Lo mais tëggal naa waykat yu bari ay Tiken Jah tëggal naa lu ko ak Kanza morceau bu bees maa ko tëgg album bu bees bi ah mais mais coiffeur bi mais fekkente Sénégal ambiance rek ambiance boo ambiance foog ko boo tëgg tey jii sax fi tëgg yoon du la fa li muy tëgg dara baax fekk yow li ngay tëgg lu jub loolu ñoom waa ci dafa yàgg waaw yàgg yàgg yàgg ñoom créewul dara booy kii ay ambiance yu xam te xam fu mu ko ciyee mais problème mooy war a jàng ñii jàng dañoo war a jàngi parce que musique dañ koy jàng sabar yi tamit boo ko bëggee dañ koy jàng xam nga waaw ñu jàng tëgg xam lan mooy sabar tarbi dem ba tey musique la nga dem jàngi musique mais mais problème bi mooy xale yi nag dañ amatul temps jàng parce que lépp rek xaalis lañ jiital. non staff nooy jàngee. xaalis lañ jiital. nooy jàng daal ah, waaw booy booy booy léegi xaalis lañ jiital moo tax talatuñu jàng musique talatuñ jàng tëgg talatuñ jàng ay way. daal daal mooy damaa bëgg. Mhm. rajo yi télé yi. Mhm. par samedi. par ñuy def ay télé variété. waaw ñuy ci est maanaam teg ay ay afro. comme ni ko mag suñu papa Maguette war doon defee di wane ay cosaan di wane ay vérité mais yow sam da ngay toog télé bi ñuy wane ay yoo xam ni ay wane da ngay toog di saan ay télé ñi samedi doo seetaan dara lu am solo te bu njëkk samedi da nga daal dem kallu ci télé yi dafa bëri ku neex ku mu neex lu neex ngay teg eh, télé yi dañoo bëri waaw télé yi télé yi dañoo bëri eh, gars yi ku ci nekk lu la neex ngay def lu la neex ngay teg Euh, mu mel ni que émission bi jamono ji yegsi nañ ci euh, yegsi nañ ci cappaandaw émission bi euh, tey dañ amoon fii benn benn benn gan ñu koy wax Khadim Mbaye le grand maestro borom peeg mees mees peeg waaw tey nag ñu amoon ko fii wax dëgg neex yàlla fii ci Radisson muy jàngale xale yi faw ngeen am kilifa ngeen wàññi bëgg-bëgg àdduna parce que tamit xam-xam mooy lépp musique dañ koy jàng ay way dañ koy jàng tëgg dañ koy jàng am fecc dañ koy jàng mais jamono ji toll na ci jamono joo xam ne clip bi léegi clip yi sax da koy seetaan sax da ngay rus. nga baal ma parce que loolu war naa ci wax. clip yi da nga koy seetaan man man lan nan ngir yàlla du ngeen nan du ñu wàññi lëmbal ji <laughs> non dama loolu dama koy ñaan gars yi quoi waykat yi. mais il faut sa bu njëkk da nga def benn clip ñu censuré ko. Mhm. am da ngay teg kii clip lëmbal ñu mais xoolal da ngay toog sa télé da ngay rus sax da nga mais est ce que Sénégal bi wan Sénégal la léegi porno la ñuy def léegi. dañuy clip ay clip bu dope ay pour porno. xale yi jigéen yi di wane seen yaram yi loolu rafetul fi dëkk Sénégal dëkk dëkku l'islam la quoi. mën na mais clip war na yeewu. Mhm. mais mais clip day am tem nga way tem clip thème bi mais yow clip clip lëmbal xale bu jigéen juutu di lëmbal mais c' est pas normal lan waa ña leen bàyyi loolu quoi. dafa ñaaw télé yi nag vraiment am na ci responsabilité quoi. vraiment yi clip yi nii teg nii. Ah, non vraiment ah, Sénégal xaw ma ban Sénégal la nekk quoi. lu war a wax la. non loolu loolu vraiment loolu loolu dama doon dama amul fu ma koy jooyee quoi mais li ñuy teg ci clip yi ni koy ñaaw na. lëmbal lëmbal yi nii lëmbal ci clip yi ñaaw na <laughs> nan wàññi lëmbal yi mais lëmbal du mais lëmbal du musique quoi mais c' est c' est grave quoi c' est après da ngay da ngay da ngay toog sa kër seeraan. toog ak say kilifa di seeraan wala nga toog sa doom sa doom wala sa ñam nga gis benn femme. ñu teg benn morceau muy clip di muy takk fer tëgg du jottu di lëmbal mais c' est pas normal quoi. lu ñaaw dafa ñaaw trop. lu ñaaw def loolu nag xamul ni ñi ñoom dañu jëm mag. te image. Mhm. image du dee de day des. a des waaw gel yi di fecc ci ñaaw yooyu. nan xalaat ni danoo war a ami doom ak ak i famille mais mën nga fecc fecc bi yiw fecc bi civilisé. sol lu jot sol lu jot. mais yow sol benn baabu sa yaram bépp tafu wala nga sol loo xam ne sa yaram day feeñ ñi ñu lay filmer ngay juutu di lëmbal ah donc yow nit bu ko seetaanee sax day tiit. mais business bi la nag xale yi dañuy business. business boobu baaxul business boo xamante ni yow boo fi nga koy business boo eh, eh, eh, da ngay jaay sa yaram. dañuy jaayoo baaxul boobu business baaxul. marketing boobu baaxul. billaay walaay baaxul nit jigéen amul lu dul dignitéem hmm. jigéen léppam awro la. dëgg la luñ la mënti fay jaru ko. wallaay wallaay buñ la fayoon un million sa jaru ko sa ngay wane sa yaram ñëpp di ko xool nit lëmbal di juutu jaru ko jaru ko xal lu la mënti fay jaru ko. <laughs> non sama yaram daaw na parce que tamit euh, yow yàlla xam na ne yow émission ak yow. normalement war na def quatre de temps parce que tamit yow li nga war a li war a jàngale ak li ak li nga war a génn si sa xol bi bëri na xajul ci trente minutes. fekk sabar génne say kër loolu jaaduwul. déedéet Youssou ko way. na ko fekk sabar génne say cër loolu jaaduwul. fekk sabar génne say cër. loolu jaaduwul Youssou ba mu koy way kañ la. yàgg na waaye ngi noonu léegi dañuy fecc musique clip bi dañuy génne ay cër léegi ci clip bi. mais xale yi dañuy business. xam nga business boobu baaxul. waaw mais business boobu ñoom est que nekkul ne ci lañ ci lañ mën a amee seen weccit. parce que tamit bëgg nañ ko seetaan clip bi woo leen ci pet jox leen benn weccit. xam nga tamit dëkk bi. mais xam nga yàlla xam doy na. xam nga jigéen yàlla da ko sagal yàlla mm-hmm. teral ko. Mm-hmm. jigéen moom bu demee ba awraam moo koy may xaalis. ah <laughs> wala pour wane wane awraam moo koy may xaalis. ma ne ya yàq nga sa bopp quoi. jigéen bu demee ba day wane cëram pour am xaalis. non non loolu boobu jigéen. yàq nga yàq na askan wi quoi boobu jigéen moom xoolal kenn waru ko sax di ko di ko parce que. parce que jigéen yàlla da ko may lu rëy jigéen moo jur. Mhm. jigéen mooy sunu yaay. mais jigéen référence la quoi. Mhm, mhm, jigéen mooy adduna. mais jigéen waruñu waruñu wane jigéen image am muy wane ay awra wala muy lëmbal wala muy def naka suñu noonu loolu jigéen moomu ko. c'est pas normal lu ay un milliard jar ko ndax image day des. te da ngay am ay am ay doom mhm. ñu naan sunu maam moo doon fecc ni way bu dul fay la. mais fecc mi danañ xool fecc mi di nëbb awra di xool ni ngeen mu yiw kenn terewul fecc mais nga fecc fecc bu yiw mais di fecc li lëmbal tak takk cinquante trois fer <laughs> ah sol benn baa bu bu bu ba pare jonkon nag. yegg suuf. mais loolu baaxul. <laughs> kenn kenn moom mënul wax lépp parce parce que euh, maestro Xaadim Baay mu ngi may daje parce que tamit lu mel ni wax dëgg neex yàlla dañ ko war a teg sax ci plateau yu mag yi ñu koy waxtaanee plateau télé yu mag yi mais nag déedéet duñ ko def ba pare nag erreur bi tamit artistes yu ci bëri loolu loolu day jaay seen kilip ñoom ñooy bëgg loolu. artistes yi américains ñoo junu ay américains ñun. ñooñu xam nga dañuy toppandoo ba far dañuy gis nga Sénégalais day toppandoo ba far ëppal parce que li nga gis américain yooyu ñoo ko def di wane ay sexe seen clip sexe yi di yëmb toppandoo américain yooyu américain yi ay julit ñun ay fii la fii fii fii dëkku seriñ Touba ak dëkku El Hadj moo Maodo Ma dëkku ay kilifa diine. Hmm. ñoo ñoo ñoo ñoo dëkk bi ñëpp waa dëkku fu dëkku Serigne yooyu la. bilaay walaay ay dëkku fii fii Sénégal ay kilifa ñoo ñoo ñoo ko sos. Hmm, hmm, kon waruñu waruñu di wane yenn image yi. yenn image waruñu ko di wane ci ci ci ci surtout jigéen ñu wane ñu fay la pour nga lëmbal ngay def yenn détails yooyu baaxul mhm. danoo danoo war di xoos que xaalis jarul dara xaalis kayit la rek wallaay xam nga xaalis du dara mhm. kayit la rek day jeex xaalis du dara kayit la te day jeex yaakaar naa ne nag egsi nañ ci cappaandawu émission bi euh, ku ne xam ne ne waxtu yi ñi cëralee woon euh, jeex na xuus nañ sax. waaw pes meeg mes peeg parce que émission. émission bi nag moo neex mais. tri bi mooy peeg mes mes peeg. dañuy defaat beneen émission. parce que xam nga lu tax ñuy defaat beneen émission. boobu suñ koy defaat dañuy waxtaanee clip yi parce que su boobaa dañuy teg clip yi teg son yi. parce que émission bi xam la moo tax nekk émission tribunal bi. maanaam dañu critiquer artistes yi nga xamante ni ñu ngi ci biir showbiz bi di ci def lu ñaaw. non ñu ngi def lu waaw ñi ciy wëy wëy yu bon yi di ci def ay ay ay. bu njëkk da naan censuré ay clip. Ah. mais léegi censuré amatul. loolu ñu def mais c'est c'est émission bi nag looloo ko a jog tëgg mi wëy yi fecc mi clip yi. waaw li fekk ci cër du feeñ. léegi man musique bi ni mu ko gisee mooy gars yi dañuy musique sexe quoi la ñuy def léegi. musique sexe quoi. Mm-hmm. waaw yaakaar naa ne. Euh, yaakaar naa ne émission bi jeex na tàkk parce que ñu waaw ñu ñu ñu ñu ñoo ngi ci ñoo ngi ci dernière minute ñu bàyyi ko rek moom mu tàggatoo ñu def tàggatoo ba beneen yoon a grand Khadim nooy tàggatoo. waaw li may tàggatoo mooy xooloon ni rek ma ma def nii ndànk rek xam naa soo ay daam lu muy dagg ma def nii. la PSG du Vocara hymne national ci baaraam tey fi nga ko gis de. mosuma gis lu mel nii. kon donc fii mais yow ku la jox bëgg ku la jox bëgg nga toj ko. pek mees mees pek bongo bongo bongo maan yi tëkkat sabar yi bongo. nan bu ñu topp bongo bi rek ba bàyyi sabar yi. xaalis. mais bongo bi nag ñun doon dañuy bongo dañuy tëgg. mais nag lépp xaalis mais bongo yi sax léegi bu njëkk bongo way moo ko taxoon a jug. Mhm. way moo ko taxoon a jug mais ah. léegi. kë gë gë gë gë gë xaalis. ah xaalis <laughs> yooyu yëpp dafa c'est compliqué man sa bongo maa man damay bongo. bongo mais tamit am na tëkkat sabar yoo xam dañ topp yi ba bëgg a bàyyi sabar yi sabar mooy affair bi. ndax nan boole ñaar yëpp. mu leer. <laughs> pek mes. pek mes pek. pek mes. mes pek <laughs> suñu mbokk internet Dakar Midi tey fii lañ nekkoon. seet si woon fi suñu mag suñu papa suñu tonton maestro Xaadim Mbaye peeg mees mees peeg fii la lépp di leeree ñu ngi leen di jox rendez-vous beneen yoon ci beneen daanan ci beneen artiste incha allahu rabbi ciao baay bye peeg mees mees peeg